at mu jot bu ñuy waajal tabaski gi ki nga xam ne moo fi nekkal waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall dina jël ay xaru tabaski yóbbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di xalifa général des Mourides. ci alxamis ji dëppoo nag le 7 juillet 2022 Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda mi nga xam ne mooy xalifa général des Baye Fall yóbbul na Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général de Mourides lu toll ci junni ak téeméer ak fukk ak benn xar mu nekk xaru tabaski nga xam ne at mu jot moom la ñuy dajale. yóbbul ko sëriñ bi fii ci Baye Fall ga nekkee ci ginnaaw Jannatul Mahwa ci kër maam Cheikh Ibrahima gi fi lañuy ñuy waajalee mboolem xar yi ginnaaw bu ñu leen sangee ba noppi sëf leen ci camion yi ngir fas yéene jubali fi nga xam ne moo di ca Daarul Minan yóbbul sëriñ bi mboolem xar yi. laa

fala ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah fala ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha la la fa la ilaha la la la ilaha la la la ilaha la la laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah fa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah laa ilaaha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 La ilaha illallah fa la ilaha illallah fa la la sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda mi ngi jiitaloon ci délégation bi nga xam ne ñoom ñoo indi woon xar yi sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne moom mooy jëwrinam àndoon kook mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima faal gi bi ñu agsee ba gis sëriñ bi jébbal nañ ko li nga xam ne moom moo di liggéey bi sëriñ bi jàng lettre bi nga xam ne ci lañ xaatim mbooleem addiye ji ci lañ door a yëkkati kàddu yi muy kàddu yoo xam ne kàddu yi sëriñ Saliou Fat Sow la muy yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci xalif général des Baye Fall. bu mag bi ci kër Cheikh Ibra Fall ci jiite yoon wi moo yónni tey ji ay rakam njabootu Cheikh Ibra Fall gi liggéey ba daan bàyyi ko kër maamam Cheikh Ibrahima Fall bay yu yoroon ko ak magam yu baax ya tey jii yàlla sama borom dogal Serigne Amdi Fall toogee jotaayub Cheikh Ibra Fall nekk ci kër Cheikh Ibra Fall di déglu ndigal li liggéey bi daje nag mu séq ko njabootu Cheikh Ibra Fall gépp mu woote woon démb ni damaa bëgg ngeen daje fi yeesalal ma xar ba mu yees peq ba mu mel ni borom Tuubaa bëgg bu ngeen xëyee suma ci alxames ji ngeen ñëw ànd ak suma jëwriñ ji Serigne Cheikh Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall mu ànd ak rakkam yi ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi ngeen jotal ma ko sama yaakaar kiy dimbali jaam ñi tey ak ëllëg Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacke ibnu Xaadimu Rasul doomi Serigne Bassirou ji mi ngi ñaan Mbacke lam waxoon nga gën fee yàggalu tànd ku wér ñu déglu Serigne Saliou sëñ Saliou sëñ bi nee mi ngi lay nuyu di la siyaare nee di yebal si njaboot gi nag mu jiite rakkam ji di jëwriñam muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng nga xam ni moo jiite liggéey ba woon ci stade ba te xam ni barki démb la ko yeewil mbooloo ma te loola lépp la ko waral mooy liggéey bii tey muy tabaski yi mu dajale mbooloo mi te gërëm leen ni leen nan leen dellu bu demee jublu ci tabaski yi defal ko sëriñ bi nam ko ko daan defale démb ba nu xëyee lan dem sangal ko xar yi te jii mu xëy ni yóbbu leen ma xar yi te santal ma sëriñ bi te ni ko ñoo ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ku wér te nga yàgg ñoo jox ndigal li ndax ñu day mbàkke suñu bëgg génn lekk la mooy di déglu sa ndigal de dafa séenu koo jëfe nag waaye mbàkke nga ñaanal sa jàmbaar ja sëriñ am ni faram sëñ Mourou Mbende li nga koy digal waxtu ne mu di ko jekku ndax amul genn bëgg-bëgg lu dul bëgg xam sa bëgg ba defal la ko mi ngi lay xamalit ni ne jëwriñam yii di sëriñ Cheikh Ndiaya mi ngi doxal liggéey bi ci na nga xam ni bu toowoon moom mënu ko weesu nee mi ngi la koy xamal nga ñaanal ko ak rakkam yii mu àndal ak doom yi nee mi ngi taxawu liggéey bi nag Mbàkke nu mu rafete ñoom day génnuñu ci nee na nga ñaanalal ko rakkam yii te ñaanal ko ñaanalal ko dongaam yi nee ci koor gi leen génne woon de. bi ñu waree ak bi ñu delloo ca liggéey ba yàggul de lii sësaat bi te fa suñu yéenee bàyyi mukk te du daa mel ni nanga ko bëggee nee na keroog mag ñuy wax ñu nu sëriñ Mountakha dey sëriñ bi danoo yebaloon ci nekku sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu ànd sëriñ Cheikh Ndiaye mii ca ca Poroxaan fekk la fa nee na mu nuyoo yow jottali ni sëriñ bi wax ni la ñoo nga bàyyi ko ci stade ba ci liggéey ba nga daal di wax ni ah maa leen ko yéene ak war gu ngeen ko war a def waaw ak war ngeen ko war a def yéen Baay Faal yi mu ni leen xanaa kenn ku nekk yéene Sëriñ Muntaxa Mbàkke jooju mënu yéene ñun Baay Faal yi Baay Faal bu nekk war nga ca attaab bi dugg ca war gun ko war a defit kenn ku nekk ci ñun war nga faa nangoo nekk de lool yi nag loolu la bëgg ñun ñëpp yéene jooju ñu borom Tuubaa mi yéene ca xam la fa nekk te yéene ñu ko ak war gun ko war a def ay waay bay faal nan leen tënku ci li sëriñ bi bëgg te yéene ñu ko ba nu am ko jërëjëf Mbàkke sëriñ bi nag doon la wax ni ndigal li nga ko joxoon ci weeru koor wi ba nu wari nga joxoon ko ndigalul ni ko waree leen foofa nee ndax dañ koy wéyal ci tabaski bi wala mbàkke nu ñuy def loolu la waxoon ni mbàkke ni bu ngeen demee jottali li ma ko sëriñ bi. ginnaaw kàddu sëriñ bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalifa général des Mourides santaan na bu baax a baax ci waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall ci jëf ju kawe ji nga xam ne defati nañ ko te nga xam ne duñ jóg ci di ko def. sëñ Mountakha nee na sëñ Saliou loolu sëñ am di dama ko waxoon na ko wéyal kon julli gi foofu la waaw sëñ bi nee julli gi foofu la sëñ Cheikh sëñ Mountakha nee na boo demee nga sa jëwriñ ñi sëñ am na mu defoon ca kori na ko def ci tabaski bi ku mu bokk Serapha ko fekk foofu ñu jullee borom Touba day wax ak ñun di wax ak Serapha sëñ Saliou borom Touba nee dégg na li nga doon wax nee na dégg na ko bu baax baax de. Mhm. Mhm. nee na day gën a fedd li ak laxasaayam rek fas yéene ko gën a ànd yéen waaye yéen day soññuwu leen nee moom mii mooy soññu boppam nee jërë ngeen jëf wax ji jërul guddal jërëjëf nee sëriñ bi moo ma leen gën a gis moo leen moo ma leen gën a yëg moo ma leen gën a xam nee moo ko gën téeméer junni yéen yoon ci ñun te nee moom de lu mu yéene bappam ak ku sëriñ Tuubaa ku ne kenn jiituwu ci Seex Ibra Faal waa këram nee jërë gën jëf nee loolu rek la ñuy jox te ñu yóbbaale ko seereel ñu ko ne nee mi ngi koy seereel kàddu yii di ko séeréel yàlla sunu boroom moom mi nga xam ne amul kumpa mi nga xam ne lu nekk ci ñun moo ko ci def ci baaxuk sëriñ tubaa gi lépp nag ci pàggu teefuk sëriñ tubaa gi nee na xon dey xanaa gën a sant ne li lu war ñun noo gunu nooyi ñu boole ko akuk cant li fekk ñoo ngi nooyi jërë ngeen jëf waa kër Cheikh Ibra Fall fàttali at mu jot waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall daañu indil ki fi nekkal Serigne Touba ay xaru tabaski daaw Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na yàlla yokk ay leeram taasu ci barkeem junni xar la indi woon waaye ren ji Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda yàlla na fi gën a yàgg lool te gën a wér yokk lim bi ba ci junni ak téeméer fukk ak benn boole ci ñaar fukki xar ak yi nga xam ne at mu jot danañ ko yóbbu ca njaareem